ñëwaat Aliou ñu ngi bi ci yow. Amadou Bamba xaalis. yow la ko almisbah Krafal. maa ngi nuyu di la ziar Maodo allah. Mhm. yaa ci jàmm. maa ngi sant yàlla bu baax. yaa ngi nelaw fan yii. maa ngi biddanti kay. yaa ngi biddanti. waaw am guy gi di biddanti. <laughs> maa ngi nelaw di biddanti <laughs> waaw. Ada Fass sa wàcc sa préparation ak guy gi yaakaar naa waxatuñoo ko préparation fi mu toll pare nañu ah. waaw noppi nañ. noppi nañ bi nañ bu yàgg. lay dencal gars yi. lan nga denc lan nga waay lan nga dencal gars waaw booy bu ndaw. le 30 xale. Uh-huh. sol ensemble bu wow kongu. Mm. atlet la ñuy indi la trente incha allah ne xale mooy bëri yow. waaw ñoo diriger ñoo ko fa am incha allah rabbi jàpp ko. waree suñu bopp jaabu ko duma ko daan ko. mais Tafa. Tafa. incha guy gi. Ada dugg na moom nee na xale. lu athlète lay indi lu wow lay indi. waaw c'est c'est normal quand on est un jeune lutteur. Ah. nga bari mbooloo mu topp sa ginnaaw am ci yow yaakaar. Mm-hmm. surtout nag nga dëkk ci gox boo xamante ne kat ay ndaanaa fu ay ndaanaan ñëw fu mus di ware dem di indi ay ndam yàlla dugal na ci làmb nga am ci tur woo xamante ne sax xëy na jëfagóol yu ñu toll. moment bi mu war a bëree guy gi nag ci la war a moom jëfe loo xamante ne tolloo na tolloo nag li ñu yaakaar ci moom mais Modou Mbaye est-ce que aada xam ne xam na bu baax guy gi aada li ma la bëgg laaj mooy yow ndax xam nga guy gi seetaan nga ay combat guy gi xool bëreem xool xeexam maa ngi jaal sama waa famille bu baax ay famille Koreera maa ngi di jaal bu baax sama bàjjan hmm. waaw di ñaan yàlla na suuf aw si kawam waaw di jaal waa Fuuta bu baax waaw di jaal tamit sama soxna waaw papam papam ma wàññeeku di ko jaal bu baax a baax e père kii xam naa ko bu baax e kon la ñuy wax rek xale mooy def lépp yee eh, man amaguma 30 ans yee kon lu ma jàpp yee non man ma ko yëkkati lu ma jàpp man maa ko moom li ma jàpp man maa ko moom si kaw sport si kaw sport quoi hmm. dama xam sama bopp ba ba léegi trois séances lay entraîné hmm. amul lu may xalaat si moom. Mm-hmm. jàmbaar la compétiteur la. sama baay baax na waaw. Mm-hmm. bëri nag ñoo xam ne man bëri ma ak ñoom. mais man mm-hmm. sama bopp laa xool. te incha allah rabbi nag 30 man dama ñëw dëggal sama bopp. bu ñu xoolee guy gi physique am. xool sa physique. est-ce que say supporters duñ ne guy gi moo lëpp doole. noo doole amul doole du volume. non <laughs> ay ñun dañuy ñuy xeex. ñun tey ñun loo mën a loo gën a pongal gën ñoo arrangé. ndaxte lu ñu yor la moo tax xam nañ suñu bëri xam nañ suñu qualité waaw ñu dañuy song te boo ñu songee ñu daan la kon amul leneen. est-ce que capable nga aussi pour taxaw ak guy gi jiyaat ak moom taxaw fitel jiyaat comme ni sa grand frère bii Gris Bordeaux. le 30 yaagul il faut xeex maanaam ku peñ. incha allah le 30 yaagul man moom sama wax moom dafa du nekk quoi ndaxte damaa ni laa damaa gëm sama bopp. samay mm. dëggal sama bopp mm. affaire góor la. mu dem aaro wala ma dem aaro ñu hmm. bëre ma daan ko. te guy gi lépp ci ay combat am bëre lay def bëre bëre. Ah, waaw hmm. day jafandu bërewul. non day bëre. non day jafandu ah bëre. daa mun a xar jëppel daa mën a dóor tànk ki day jafandu xam nañ ko bu baax. mais day yenu ah. mais day buddi yow mënu yenu. day buddi pokotaan. mënuñoo yenu incha allah mënuñoo yenu. Ah? xam nga sama tànk sax mun mun mënumaa def dara. na ko ñëw jël tànk bi laa bëgg mu ñëw jël ko. mu jël ko waaw ñu fi jaar yëpp waaw ku nekk da jaar nii wala nga jaar nii. Ada Fass. doomu moom mën na day day mën a bëree tànk mën a bëree ndigg mën a bëree mën a bëree fépp. Ada Fass kuy gi briseur de rêve la. moo ñi déclenché woon ñëpp jaar ci moom daf leen freiné. waaw. Ada dama gis ni combat bii la gën a yombal alors que guy gi combat bii la gën a fonk. Hmm. la détermination de guy gi ak engagement guy gi ci combat bii pour plusieurs raisons. combat bi sama combat bopp la. Hmm. yow ak moom yow ah. ak gaal gi dem. Eh. teg jeexal la quoi daa fi mu bëgg a jëm si làmb kon lii mooy examen bi quoi dama koy admis. Hmm. Ada Fass est xam nga guy gi Ada Fass man dama gëm ni que ci benn excès de confiance bu extraordinaire nga nekk ah. daa am fu ñu jotoon a jaar si làmb juum. Hmm. yee hmm. ñu teg suñu tànk. Zarko mi la daan guy gee ko daan. waaw moo tax ma daa am fu ñu jotal na jaar. juum. yee am fu ñu teg suñu tànk daa am fu ñu teg suñu bët. sama waa sama ginnaaw ragaluñu dara kon man lu may ragal. Mm-hmm. ma ginnaaw dafa tàng de fu ma jëm ragaluma ko avion la day jug. Hmm? guy gi xale bi bëre ak yow mi ngi wax ak mi ngi wax et à chaque fois bu ñu koy gis muy wax il parle avec confiance. il parle avec beaucoup de détermination moom mi aada ci sa combat. alors waaw Modou ah, Modou Modou dama doon nuyoo am fu ma tolloon. waaw sama xol tooy. Hmm. combat bi bi ma ko jël dafa yàgg. au mm. passage ñu ngi nuyu Luc Nicolaï moom moo tëgg komba bi jox ko Albourakh Events ñu àggali ko mu yàgg. Mm. kenn ku ne xam ne combat bu yàgg ni muy mel ci mbër soutien de famille. Mm. te ñun waxuma la sax man mais duñ pare sax pour nga daanu mais dañu pare pour génne la làmb ji ma am fu ma tolloon nag ci làmb ji. nas fekk ma fa démb ñu waxtaan waxtaanu sax daf ma wow loolu moo tooyal suma xol. Mm-hmm. moom xam na man xam na yàlla xam na mais doom war a saar noonu la war a mel. Hmm. ku jël doom tuddee la ko su deful loolu deful lu ko war. mais ay histoire la fiy nett. non damay nuyoo ko moom kii moo tollu ci wax man li ma mën mooy la trent incha allah arbitre ma dóor ko ci puut kon li ma waxoon. mais pourquoi nekkuma fi di waxantu. nga dóor ko fa ci puut na ma fekk si. moom yow yaa moom làmb ji yow yaa yow yaa ëpp doole. ah da kii bëgg la ah, da ma may daf may daf may may may may wax ba pare man benn benn lootu ak moom. Ah, moo ëpp doole. yaa gën a nekk xale <laughs> yaa jël ñetti avance yaa ëpp. popularité mais incha allah incha ah, d' accord li am suba yàlla ko xam mais man li ma li ma bëgg a def man li ma nar li ma bëgg a def. Hmm. du mindeef moo xam nii di ma ko tee def xanaa suñu borom. Hmm. te xam naa boo nekkee di mbel mbeli mbel mbeli soo gisee may jaar jaar wala ñu su may kaset. Hmm. wala kii ma toogal rek ñun la jaar naa ak moom fenn. minute Ama Baldé mënoo ke ku ko dënir ci làmb ji champion nga minute am laa wax de minute am hmm. ma jàng ko bëreeg moom ma toog ak moom nga toog nga naan ma ay yow nang di mbel mbel dama lay duma dal la loolu ngay bëgg dégg non giri lay man waxuma giri waxuma Ama Baldé ah, Ama Baldé mii tey lu ma ko wax wax wax damaa bëgg a bëri waat ak moom ah, muy ah. giri muy keneen mais nit ki wax sa baax waaye wàññi su baax dara ini Ama Baldé ku ko tënir ndaanaan nga koy leer na hmm. minitam ku ko tëndi ndaanaan nga. kon giri am na problème. non moom mu giri ñoom ñoom giri sunu grand frère def na li war a def ci làmb lépp. mais da wax loo xam ni bu ëllëgee ku la ciy dégg man damaa seetu lu neex nit. kon yow da nga bëgg a wax xale bi ant mënul téye sa minute antanul sa une minute. maa ngi doole fuuf Modou exemple boo bëggee dégg dëgg. dégg moom mooy espoir mënu ko xale laa. xam nga information moom bi. maa information bi am information bi am. waaw waaw waaw. dama jaar si ah. tànk yi wan ko. je le trompe tànk yooyu muy wax. tànk yi bis boo ñëwee ma dëpp la. ba bis ba. Eh, ba ba. man ñëw naa signature indi beeke. dama lay imposer jàpp la duma la dal la. man maa la ko wax. gis nga bi may bëree deux mille un deux mille boo seetloo bekkaay yow gars yi woo na la ne guy gi li tax muy kii handicapé yi naan muy mindi bekke bi signature boobu bi may làkkee anglais yi. dama ñëw di bëri Ama Baldé signature contrat am na ma doxee ñu ni gudd la fay la ma ma indi bekke mais gis nga la ci xew man noonu laay dundee dinaa indi bekke nag. na nga fexe ba du na nga dugg ci tànk yi. waaw eh, dégg nga de yow booy bu tàng bi la. tàng cër day lakkee. yow bi nga tollee fii. ñun ñun ñun ñun bi ñu tollee fii nga toll. dañoo gérer tool gérer la dama lay duma daan la. muñ ñu dañoo gérer. dama lay duma daan la incha allah dama lay duma daan la. la fa waroon nekk nekkatu fa. yee eh, dama lay duma daan la. yaa tuddoo ne dem <laughs> na déggoo ma de loolu nekkutu fi déggoo ma waaw déggoo li ma mag bu téye boppam moo gën xale buy parang parang di mel ni dañ koy liggéey matin midi soir déggoo ma de man bi may toll fii man bi may toll fii ay diriyànk dañ may wër du ma tëj ci appartement la may lànk réservé réservé ah, damay réservé man man man man bi ñu ma déversé mais bi ma takkee bii bi. boobu lañ ma déversé. le la wax. góoma de. 30 déet waay. Eh, bi ñu ma déversé. Ah. bi ma takkee bii bi lañ ma déversé. man damaa réservé man damaa téyewoon son bopp damaa réservé. la 30 espoir mooy feeñ entraînement bu. xam nga béykat kii ñu ngi may wax loo. te bi may wax sànq nuyoo bi àggaliguma ko. non bi dafa ma sax waaw defal ndànk defal ndànk defal ndànk. lii nag moo nu neex. nuyoo bi dafa gudd. yee li may laamu ji li may laamu ji yomb. daanaka calme-toi. fii xam nga fii. fii amul ñëw ñu ko tubaab li may xam nga fii. maanaam yi xam ne ay nit y a beaucoup de parler il faut parler il faut réversir trop boroy ay nit lën yaa ngi dégg benn mbër bu juumee ci communication mbër yëpp ñëw juum ci communication benn dama ne déglu ma man dama lay duma daan la waaw da ngay déglu ma ba pare eh, ah da ngay déglu signature ñaari be fii mënoo fexe bañ bëree fii amul lu fi yomb. kay songu ma ko. songu ma. da ngay tëdd. damay waaw moo tax man ñoo songu ma. comme doo déglu kay. rata rata rata mel ni mété doo déglu. Ah, loolu dal. li wax man du ma wootanteeg yow loolu. li yaa ko woote fan nga déggee ma la ah, damay damay communiquer yow rata rata. waaw loolu kenn weddu ko loolu macha allah dañ ciy kontaan duel ba mu fees dañ ciy kontaan bu arbitre sifflé nga maam comme ni ñuy wax. Serigne Saliou ma ma def loolu cuune. maa ngi ñëw maa ñëwaat ci combat bi parce que dafa am élément yu ñu war a lancer. non doo may tuuti bala. dina ñëwaat dina ñëwaat ñun ñaar dañ doon wax. yéen a kat. Eh. dañ doon wax ñu dog ñu. Ah. sponsor bi dañ koy sant gërëm ko. parce que tey moo moo moo moo Cobra tey defe naa ni tey làmb ji waxuñu la waxuñu la ni mu jàppale làmb ji mais ni mu jàppalee yi rek kon defe naa bu ñu toogee sol blouson ñun dañ ciy wax parce que da lay da ngay ñëw ànd ak moom nga pare mu seet si la may la xaalis jàppale ci biir kon Asmaan Ndukumaan sunu père ñu ngi lay sant di la gërëm di naan yàlla nga gën a yokk sa loxo xam ni làmb gis na ci ñun gis nañ sunu bopp ñun waaw gis nañ suñu bopp Cobra ak original di nuyu Aziz Ndiaye bu baax di nuyu Baye Ndiaye di nuyu di nuyu waa Arbourah Events Aziz Ndiaye Aziz Ndiaye mi ngi nee toog Aziz Ndiaye mi ngi nee toog sama soxla mosu koo xam te ba àdduna si ñaar fan du ko xam mais néew na koo xam ni wax nga ko soxla te faju ko néew na koo xam ni yow ngay mbër mu tëgg la nga toog ak moom waxtaan ak moom ngay dem jox la xaalis même du la tëggul. merci di ko nuyu di nuyu Masata di nuyu Ndiak di nuyu famille Aziz Ala bi yëpp. acca Mamadou. parce que man moom nekkuma fi di benn benn dina ñëwaat léegi ci Gris Bordeaux. Ama Baldé le temps Tafa Gueye le tigre de Fass dina def jël bi. léegi ñu ñëw ci. Madji Madji Madji ak et tafaat téléphone bi pour lan la. mais bàyyi li ngay cité. xoolal temps bi dafa gudd de. sénégalais yi cuuna ñuy toog jàpp ci ah. yi vidéo bi tiital na leen. Ah parce que ñu may message ñu ngi naan ma mais Modou kon kuy seetaan doo am droit sax dugal statut. ah ah. gars yi nee nañuy dagg. eh Mamadou. ñii mën na noo taxaw fii. Ah Mamadou ñii mën noonoo taxaw fii mais da ngaa fàtte a ngi toog le temps ñii di waxtaan. Ah. moo yëkkati ñaari kàddu ah. <laughs> ah mais tamit a ngi fi buur géwël a ngi dama doon bëgg a dugal lii ba pare soog a ñëw ci buur noppil rek bu bu fi indi tendance. allo. ah non mais bu leen bu leen fàtte ne nan échauffé wu le temps. Mansour Diop ci présentateur lay jig la bokk. Père Mansour. monsieur Bilal à chaque fois Bécaye day doxee si ma jox ko à gauche. waaw présence am fii nag. mais Mansour daa waroon a ñëw nii sax. Adja monsieur Bilal. Adja Mansour. la jógee fraîchement doo ko ñëw nii. waaw waaw fanaan yi maa ngi leen di nuyu. caméra ba kay bàyyi ko mu def lu ko neex. ay <laughs> may ma tuuti rek maa ngi nuyu Moustapha Gueye ak Bourguewal maa ngi nuyu Bekaay mbay ak doomam Mamadou Mbaye suñu doom Bembe yaa jazz national bu génne Boubacar Demba Camara Boubacar Demba dafa dóor mu ne écouté ñu ne ko lan la ñuy écouté mu ne ma wax leen ci Samori Touré xewoon bu jëkk moom la ñu bëgg xamal tey ñu nuyu bàyyi Ndiaye di nuyu Assis Ndiaye ku ma ni woon tey dinaa teew Sénégal fii tey du ma ko gëm. Moustapha Gueye ak Aziz ñoo ma ne ma danaa ñëw tey fekk lii tey. Mm. daggal ma billet loolu ma tax ma ñëw fi teew fi tey. loolu nag du ñëpp ko am. déedéet. Naar maa ngi nuyu. di nuyu Jules Baldé ñoom Paate ak ñi ñu àndal ñëpp maa ngi leen di nuyu Moustapha noonu la war a demee.